pourquoi réagiruñ cheikh bi silence arme bu extraordinaire la il veulent savoir ñi fan lañ jëm muy benn maanaam nañu sonde nan lañ cokkaas xam nga léegi lañ nga gis borom doole bu taxaw sa diggu yoon xamoo ndax dalay dankal kurpañ wala nga jël dara sànni ko xool ndax dalay song daanoo bàyyi loolu xel hmm. temps booy léeg-léeg nga doon benn mbedd gis xaj xaj bi tëdd nga jël xeer sànni ko xool ndax dana jug hmm. lii benn la cokkaas pour xool réaction bi lan la hmm. maam débat bi gouvernement bi dafa am prouesse yu mu réussir en peu de temps quarante cinq jours mu yu ne fàng-fàngaaral sénégalais yi commencé ci focus nit ñi di ci communiquer loolu munuñ ko opposer ñu bëgg toxal débat bi indi ko débat de bas niveau mm-hmm. yaa jàpp tëj nga tëjoo Sonko way jaay doole yu mel noonu bu ko defee ñu assainir presse bi gis nga fan yi niñ mel quarante huit heures yi ñu ngi gëjoon gis gis nga leen donc foofu la ñu bëgg indi débat bi detu l' attention des sénégalais ci li li nga xam ne mooy l' essentiel. l' essentiel mooy li fi nguur gi defagul donc ñaar yooyu am na ci. kon su ma déggee li ñu leen doon wax naan leen opposition bi dafa dafa dafa muet. Mhm. dafa noppi. silence assourdissant silence assourdissant bi ñuy def mhm. man xamul xamuñu lu ko waral. bien sûr loolu lañ nekk di corriger. mais bien sûr te bàyyi woo xel bi Amadou Ba ñëwee ci la yëngu-yëngu yi am. Amadou Ba jeex na ah jeex na ah, donc moo tax ma ne la dafa am y mais une main derrière y a une main derrière bu baax bu visible sax bu ñëpp mën a identifier léegi nag ndax les sénégalais dinañ tomber ci piège boobu je ne pense pas. Hmm. parce que sénégalais ñoo sonn ci débat de bas niveau boobu. Hmm. débat politique politicienne boobu ñun ñoo ci sonn. ko dund ay at. parce que amul benn sens amul benn sens déjà dafay polluer. Euh, espace public bi sénégalais leneen lañ soxla nawet a ngi ñëw dëkk bi gestion gestion wu assainissement baaxul bu tawee day inondé ñu ngi jëm ci nawet ñi ngi jëm ci tabaski yëpp ay priorité la. mais mais Cheikh li nga wax noonu. Mhm. est-ce jàppoo ne warul woon tax ñoom ñu waroon a jóge sax. Euh, daal di xalaat beneen stratégie que ndaxte comme ni nga ko waxee ci ci jamono joo xamante ne nii élection yi bi mu jàllee yàggul. Mm-hmm. matul sax deux mois fi mu toll nii ba nit ñi jëlee pouvoir ak léegi. Mm-hmm. donc stratégie bu ne mel su dee stratégie la. Mm-hmm. nga indi ko est-ce que c'est bien réfléchi alors. non c'est pas bien réfléchi en fait mun mun nga ne dañoo jeter ñi ñuy génn loo moo tax maa ngi koy wax démb ci benn plateau ñi ñuy génn loo fan yi dañ nekk di leen sacrifier. waaw sacrifier leen mooy lan ak lu ñu leen mënti jox ak lu ñu leen mënti proposer. Mhm. jaru ko mhm. jarul ñoom ñuy exposer seen biir parce que attention ku fi génn diffamer autorité gars yi lay jàpp. Mhm. lii mooy dëgg de. ku fi génn accuser ay nit li nga yax amoo ci preuve dañ lay jàpp. léegi nag ndax yow avantage yu ñu la mënti jox wala lu ñu la mënti digg jar na ko je ne pense pas. man kenn du ma géeree mooy homme politique bu yore woon sa gestion. bàyyi fi ay catastrophe bàyyi fi ay luuxu ragal yoon dal sa kaw nga bëgg maa gérer du ma ko nangu. Mhm. léegi nag ñoom ñooy nangu xool ndax ñoom danañ nekk agneau du sacrifice ñoom mouvement des activistes soi-disant républicains yooyu ndax ñoom danañ nangu nekk agneau du sacrifice. Mhm. man de couronne man la ku ma ko bëgg def loo ma bañ. en tout cas c'est pas bien réfléchi niñ ko defee baaxul te. niñ ko defee en fait lim leen yàqal sa xaraw parce que nee naa la ci l'affaire Bah Diakhaté wane na ne ñoom lañ doon xeexee Pastef yëpp ndekete ay sas tey li liñ doon jiin Pastef na financement occulte la tey ñi ngi koy def muy levée de fonds aveu la daal aveu d'échec la aveu de culpabilité la gis nga APR Benno de manière générale boo ko waxee ñu ne xëy na ànd ak ñoom mais dafay disparaître dans peu de temps mhm. dafay disparaître APR mhm. amut avenir ci espace politique bi. Ah, moment où le gars defar xam nga PS mi nga tas biñ nekkee au pouvoir. Mhm. la tas la ñas génn jiboo ak yenn membres yi. Mhm. ci lañ génn. bi pees demee opposition ñi fa reste mooy ñi gëm PS moo ko maintenir ñoo accompagner tanoor ba fi ñu toll. PDS bi muy tas ñi ngi au pouvoir. Macky mhm. bi muy génn Idi bi muy génn ñeneen ak ñeneen ñi ngi au pouvoir. APR moom après pouvoir lay tas mooy fi ñu toll nii te bu tasee dara dootu fa des parce que dafa bëri ay clan dafa bëri nit ñu yéenantewut jàmm dafa bëri nit ñu soxorante seen biir te xëccoo bi entre Macky Sall ak Amadou Ba mais APR du ci mucc. Hmm. man dama gëm ne dafay dafay disparaître dans peu de temps même di nga gis li ma la wax. APR dana woote réunion nga gis fa trois personnes et li symbolise loolu dama lay jox benn élément bu factuel rek. Mhm. président Macky bi muy génn pale mhm. quatre personnes ko wër. kan ak ab ak kan. Abdou Mbow. Mhm. Abdoulaye Daouda le président de l' assemblée yaakaar na ak Doro Gueye loolu du APR. lii du APR ñeent ñi ma la limal du APR. moo dama la APR tas na léegi damal Abdoulaye bi muy génn pale ñan ñoo ko wër tegal ñaari image yi nga méngale leen. di nga xam ndax parti bi am na avenir wala amul avenir Abdoulaye bi muy génn palais. comité directeur PDS yëpp ñu ngi wetam. Mhm. wala lu ko raw. Mhm. Macky Sall même si ministre newuñ même gouvernement bi mu mujjee am dix ministres teewul loolu ça veut dire beaucoup de choses. Mhm. ay messages la ñu. ay messages da xam ne parti bi tas na. Ah, d' accord moo tax ñoom ci seen geeru geeru geeru geeru leader boobu. fi toll nii donc euh, est ce que Amadou Ba donc je sais pas mais théoriquement parlant. Mmh. il peut être considéré comme le chef de l'opposition puisque euh, élection yi ñu génn moom moo gagné moom moo nekkoon deuxième présidentielle bi est-ce que moom noppi na la personne mm-hmm. nekk na nit kuy pare pour taxaw opposé wu quoi boole kook ay débat d'idées nag titre bi ça lui revient de droit mais Amadou Ba amul dayoo amul épaule assumer le chef de l'opposition rawatina opposition bu war a janoog président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko amul dayo bi dafa amul charisme bi wala dafa amul xam-xam bi. am na xam-xam bi li ma gëm sincèrement dama gëm ne am naa xam-xam parce que fi mu jaar fi mu àgg ci jàng man gëw ma ni ko amul xam-xam du fa jaar sincèrement sincèrement li ma gëm man gëw ma ni ENA nit ku jàngul dina fa enseigner. Mhm. yaa ngi comprendre c'est un cadre de l'administration administration bee ko defar fi ñoom Sonko jaar la jaar fi ñoom Diomaye jaar la jaar mais xam nga luy problème bi. Mhm, lan mooy problème bi. nit ki la Amadou Ba en fait. c'est un partisan de la moindre effort Amadou Ba pare wut a def dara maanaam Amadou Ba mooy véritablement toog muy dox. Amadou Ba waaw. Ah, li ñuy woowee toog muy dox toog muy dox mooy Amadou Ba. lépp dañ ko xay defal par procuration Amadou Ba xoolal bi mu bëggee ne premier ministre dañ ko ko waxal bi mu bëggee ne candidat dañ ko ko waxal. bi mu ah, bëggee uti réew mi dañ ko ko waxal bi mu bëggee opposé dañ ko xay waxal. du du xuloo kenn. mais loolu mënut ne. léegi nag Amadou Ba mu am na ñoo xam ne lekkukaay lañ ko def bi mu tollee war a nekk candidat ñu daw na ko yaay jël réew mi lekk li mu am bu paree doon opposé wu ñu dawaat na ko yaay opposant mag ba pare lekkaat li lii la donc moom dayo boobu amu ko parce que un opposant du comme Amadou Ba tu sur la table da ngay génn da nga Amadou Ba bëri na affaire yu fi am yoo xam man bu ma doon opposant damay génn conférence de presse <laughs> ndax moo tax man la du opposant bi. ndax xëy na boo waxee légitime nga pour wax. bëri na affaire yu fi am yoo xam ne su ma doon moom may opposé régime bi damay génn conférence de presse moo tax man la Amadou Ba du opposant léegi nag Amadou Ba xam nga ñan lay yàqal du yàqal le pouvoir rek. l' opposition lay yàqal mooy yeneen opposant yi. Mhm. dafay nekk seen kanam puusul paasul. Mhm. maam daf leen def de l'ombre ba pare moom du évoluer. donc bu yàggee lan mooy xew opposition bi nekk ci ginnaaw mooy dee. Mhm. donc Amadou Ba moom combat wu opposition bi la mais du combat wu le pouvoir. opposant yi nekk ci ginnaaw Amadou Ba seen combat la fexe mu dégager parce que daf leen ni def de l'ombre te moom jëmut fenn. moom comme même même kon dans la pratique sax il n'est pas le chef de l'opposition kon alors moo tax ma ne la taxawaayam chef de l'opposition sax du arranger yeneen opposants yi. Mhm. moom yàqalul dara la pouvoir. mais mhm. opposition bi la yàqal dafa leen empêché ñu avancer te moom avancé wul. xam nga dafa mel ni ngay daw ci tali oto pan sa kanam. Mhm. xam nga doo avancé. Mhm. jeex na Amadou Ba noonu la mel ak opposition bi. waaye teg ci moom bi muy gagné sax daf ko euh, bi muy nekk deuxième plutôt daf ko nekk ci bannière. Benno Bokk Yaakaar léegi lan mooy alors moom nekkul njiit li. léegi léegi lan mooy ànd ak moom biir Benno ak lan mooy ànd ak ah, Macky Sall. ndax euh, njiit moom moo war a nekk chef de l'opposition ci li ma jàpp. ci noonu euh, donc déféré am na. ba ba jaxate donc comme imam mais tamit am na keneen ku nu ku nu ku nu defeere ah ci ci ci wàll wi mooy kii ñu dénk commune u Sindia donc ci wàllu jëm ci ay rapport ak yu kenn xam bon pas defee mais woolu nañu ko en quelque sorte jàpp nañ ko waaw di ko di waaw d'après les infos di di ko déglu loolu itam jeego bi boobu noonu mënees nañ ko xaarandi ci yeneen ak itam noo koy jàngate boobu bon d'abord li ma gëm mooy lan. mooy yeneen dana ci topp di peu de temps da nga déggaat yeneen arrestation hmm. waaw hmm, d'après xibaar yi ma fortaatu. Hmm. machine bi moom déclenché wu na ci rapport d'audit yi waaw xëy na tamit ñoom loolu lañu ñu yëg moo tax ñu yëngal mbirum bàjjaxate bi pour jéem a détourner l'attention wala pour bu machine bi ñëwee ver ñoom. ñu ne non li ñu opposé wu. li ñu seen voix moo tax ñu jàpp leen. mais mhm. machine moom déclenché wu na. te bii dana uteeg yaraanam. Mhm. du nekk lu sélective. te du nekk loo xam ni day am ku maam ndey ak ku maamul ndey te du am intervention. Mhm. waaw mais de sur sur moom machine bi déclenché wu na da yeneen arrestation. Hmm. mais mais mais bon euh, euh, su arrestation yi dañuy. téye ndéegum nit ki ba keroog lépp leer. bon xam nga arrestation pour éviter li nga xamante ne nii xam nga su ma waxee loolu mooy dafa am benn question bu ñuy soulever. Mhm. ndaxte régime bee passé. gis nañ ni ñu daan def. Mhm. dañuy ñëw rek fekk nit. këyit yóbbu dugal. Mhm. teg la fa ay weeri weeri weeri weer. après ñëw rek génn na bàyyi nañ la. defoo dara. bon jeune ne pense moom ci régime bi. waaw ndax dinañ baral jugement yi. non seulement dina gaaw non seulement du nekk lu politique tam. waaw surtout ça parce que. man li ma gëm mooy heure bu feeyi avéré rek. Mhm. procureur dana def dana émettre mandat d'amener xaw ma mandat d'arrêt lan ke xaw ma mandat d'amener mais dana la teg loxo jébbal la ko. Mhm. léegi nag appréciation ndax dalay mandat de ndax dalay def su contrôle judiciaire takkal la bracelet la tant que sa di tijji loolu procureur mooy apprécier. Mhm. mais daal li ma yëg. mooy machine moom déclenché wu. déclenché na te du taxaw tam. te képp ku laale ci rapport yi moom. yoon dina def liggéeyam non mën a doon danga dugg. Hmm? te surprise dana am parce que di nga fi dégg tour yoo xam ne ñu bëri dañ yaakaar ni dañ jege le pouvoir et que peut-être loolu du leen laal mais yet bi amul xaaj ak seen. soo ma waxee loolu ba sama xel du dem ci ñi may dégg ñi may jàpp ne dégg naa leen ci ci rapport yi. non paa pas ñooñu mais dafam am des proches maanaam xam nga proche yoo xam mun nga bañ a proche politiquement mais proche ci gars yi parce que gars itam c'est des cadres de l'ENA seeni seeni promotionnaire rek nekk ci yenn station yi wala ñoo occupé woon yenn responsabilités yi mhm. ñu bëri mën nañ foog ni relation yi ñu ñu amoon ak ñoom mën naa tax ba duñ leen laal ñi ngi nax seen bopp mhm. kon defe naa ne loolu moom euh, li ci kanam raw li gët en attendant mais lépp loo xamante ne nii rek euh, jug na ci euh, jëm ci wàllu xibaar lu soxal lépp lu jëm ci rapport itam Euh, xam naa ne jombul dina am lu ma def ak Cheikh Ousmane bu ñu génnee après incha allah <laughs> ah, inspiré na ma comme ni ma koy defee saa su ne waaye nataan naa yéen ñi may suivre ah, am na benn sondage bu ma leen jox mooy Cheikh Ousmane lépp lu fi wax permetre naa leen ngeen participer ci émission bi mooy lan dem leen ngeen xool nee naa leen ndax d'accord ngeen ak Cheikh Ousmane li mu leen di analyser li muy def ak man émission lii moom man rek ko sañ am naa xaritam pendabat ji bu ñëwee dina ma dóor mais ah dem leen ngeen joxe seen xalaat dem leen ngeen joxe seen xalaat ci sondage boobu cliquez oui ou non donc euh, tamit n'hésitez surtout pas à faire des commentaires comme ni ngeen koy defee waaye tamit posez vos questions maa ngi gis xalil ah, Khalil ah ñoom Khadim ñoom ñëpp ah, ñu ngi ñu ngi may defal ay commentaires nday Khady Diédhiou ah, maa ngi leen di ziar nday Khady waa dinaa la dinaa joxe numéro couture moom mooy defar yére yii may sol. Ah. te koor ga ba léegi ñu ngi ma xëy di Habib moom. Ah. xaaral ma ne ax ah rek si Ousmane Habib mais sama gars eh, ndox bu leen leen ko ndox mi. café gi Habib ma ne ax rek. mais mais mais Cheikh Ousmane. ah def sama xale bu baax bi. baal ma ne ax rek def yére yu rafet yi. baal bi indil na la ay jàllaabe yu bëri mu ko denc fii. ax baal ma ne ax rek. <laughs> <laughs> mu ngi noonu en tout cas Cheikh Ousmane Touré lay àndal ci waxtaan wi mais Cheikh Ousmane. sans item ba également on a besoin di di waxtaanee itam. ndaxte xam naa ne jombul conseil des ministres dina ñëw ci kanam. mais balaa may dugg ci conseil des ministres. fii nii ñu ngi ci 47 jours ginnaaw ba Bassirou le président Bassirou Diomaye fay jotee réew mi léegi. Mhm. donc euh, suñ doon def bilan des 47 jours. Euh, lan la ñuy mën a jàpp bilan bi day positif. day négatif wala peut mieux faire. non mais très positif. très waaw ah oui ah oui ah oui ci li ma fekkee gum nag. ñu ngi ci quarante sept jours.